cœur de ville yi seen njiit di président Serigne Mboup ñu ne am na loo xam ne moom lañ fa bëggoon a def mairie Kaolack wax des ko demal arrêté ko loola lañ bugg a indi tey ay leeral ñu di leen di xamal ne amul benn yoon bu mairie Kaolack waxee ak des kos ne ko demal arrêté ji loolu loolu waxi ku gàtt xam-xam la waxi tooñkat la waxi ku respecté wul Kaolack la Descos yoonam nekkul ci mairie mairie yoonam nekkul ci Descos. waaye ñoo ngi leen di xamal mbokki Kaolack ñoo ngi leen di xamal yéen journalistes yi ne waa Cœur de Ville ak monsieur Serigne Mboup musuñu taxaw def demande d'autorisation de construire. Serigne Mboup li mu bëgg mooy victimiser wu rek Kaolack waay yërëm ko. ne sëriñ dey ku baax la waaw sëriñ dey mu ngi ñëw pour defar Kaolack sëriñ dey mu ngi ñëw pour indi alalam def ko ci biir Kaolack sëriñ dey nit ku baax la dafa fonk Kaolack waaw Mariama Sarr en tant que maire di ko gunduxataal parce que fonkul Kaolack moom caricature boobu de la ñu bëgg a servir sëriñ buub transformé na transformé na ko béréb boo xam ne tooñ askan wi tooñ état ñàkk a respecté législation pays bi cœur de ville laa ne ay vagabond politico administratif ñoo fa nekk yàgg naa tooñ yàgg naa tuumaal nit ñi yàgg na jéem a tilimal mairie Kaolack waaye population de Kaolack ñoo ngi leen di xamal ne ñun jotewuñu dara ak loolu mënuloo ñew ne da nga soxla Kaolack dama bëgg jël mairie Kaolack te yow sa ñak so dërëb lepp lo xamne ne war na am en tant que institution municipale nga ko koy xagn lepp lo xamne ne war na am en tant que institution municipale nga koy jël di lek diko di def ci sa ci sa programme di def ci say projet li Kaolack wara am yow do ko ko jox damaa wax ne cœur de ville vampire la rek boo xam ne dañ ko fay def c'est un machin boo xam ne pour manque deretu Kaolack pour manque deretu askanu kawlak ñoom dañu ngi enrichir waaye Kaolack waaye ñu ngi ndóol te man damay génn ci biir dëkk bi di dégg ñu naan sëriñ de jël na alalam def ko ci kër de ville sëriñ moo moom kër de ville sëriñ moo jënd kër de ville dara nekku ci dëgg mais dañ ko koo jox ci yaa ma neex waaye Serigne dafa jël cœur de ville défiguré ko transfiguré ko jël projet initial bi nga xam ne moom moo amoon di ci tabax lu ko neex di dindi lu ko neex di seet li nga xam ne moo koy dugalal koppar li nga xam ne dugalu ko koppar pour askan wi la mu sànni ko fële li nga xam ne mooy dugg ci poosam mu jël ko di ko tabax loolu la Serigne def CDF bi pare na woon ba presque à 80 pour cent ci jamono boobu en 2011 waaye comme xam na ne CDF bi du ko loué comme xam na ne CDF bi du ko jaay comme xamna na ne sedaaf bi mënu ko dindil deureum mu ko fa tek ni yek bu nakari milliards ya ñu ko jox pour mu agali ko wu ko muy ñew naan lamay defar ay terrain yo xamne initialement nekul won ci projet bi nañu serigne bu wax lu mu bëgg te serigne bu dafa am organe de presse radio baa ngi nii xam ngeen ne radio bi waxatu 4 millions moko téré wax 4 millions ci ko am 400 milliards 4 <laughs> millions donc du lolu moko ko intéressé rajo baa univers fm dem leen ci télé bi ngeen seet seen collègue yi ndax am nañ contrat yu baax ndax ñu ngi leen di fay dem waa waaw damaa wax ne ku mel noonu war nañoo mun a jàngal ñu